jërë ngeen jëf di rafetlu ànd ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seen bulletin d'information Aïssatou Seydi Diop Iseg coow la di wéy rek di gën a am ampleur nege ni démb nag ab benn vidéo moo def fuite def le tour des réseaux sociaux kii di Aïssatou Seydi di ci yekk lu mel ni Xeme Diop Iseg nekkoon ex jëkkëram kii di Aïssatou Seydi nag dem na sax bu ci saaga waajuram bu jigéen di ko traité de pédophile mu doon wax yu rëy yoo xam ne nag ñun ñi sax mënuñ cee jaara ndaxte rek neexul ci déggin kii di Aïssatou Diop nag Seydi ba tey di xamle rek ne Euh, kii di Diop Isaac euh, fayu la naar bi xormam ndaxte bu fayoon naar bi xoromam euh, dina doxalee neneen nu dul nii kër googu nag ñuy xëccoo mu nekk kër gi nekk Sacré Cœur dañ fa interdiroon ki nga xam ne moo di ay Aïssatou Seydi ngir mu dugg fa procès Iba Thiam ubbi na démb ci euh, mercredi bi kii di euh, dam Amar nag euh, daal dina wedd rek bépp tuumaal boo xam ne rek tegoon nañ ko ci ndoddam li di xam ne rek ne appartement boobu nga xam ne fa la jëyee jooju amee woon moom invité wu invité wu ci kenn da ko jëloon rek ngir na boobu tuddoon Aliya moom nag euh, dam Amar xam la ne ne kii di Djadia euh, ak Iba Thiam moo ñoo ko woo ne ko dinañ ñëw ci boobule fête donte couvre-feu amoon na waaye nag kii di luuti Ba dafa indi ay kàddu yoo xam ne dafa contradictoire ndaxte nag dafa xam le ne fête boobule bu ca ñëwee dam Amar moo ko moo ko daal euh, di ci noonu nag Louty Ba xam la ne mës ta gis euh, lu niroog yamba ci boobu boobule pièce kon nag Iba Thiam consommation boobu mu doon def ba overdose am ci ca biir euh, chambre bala ko doon defee moom sax euh, kii di luuti ba xam le ne ne bi jéye ji amee dam Amara moo ko daal di woo ngir rek ñu wollu kii di Iba Thiam génn ba àdduna Serigne Abdoul Aziz Sy ibnu Serigne Moustapha Sy Djamil lundi dernier nekk nag benn mort boo xam ne c'est pas naturel buñ sukkandikoo rek ci autopsie bi kii di euh, Serigne Abdoul Aziz Sy ibnu Serigne Moustapha Sy doomam bu góor moo ko daal di poignardé à mort ndaxte nag blessure yi daf cee ñàkk fe da cee ñàkk deret bu bëri rek ba daal di ñàkk ci bakkanam ba fii ñuy waxee yéen nag doom bu góor bi ba nga fële ca loxo yi yoon

Sadio Ousmane Diédhiou mu mel nii nag moom nag sotti na ndaxte kii di président Macky Sall daal dina ko jël en charge waaye laata boobu rek sénégalais yi collecté woon nañu ab benn somme bu am importance ngir rek kii di Sadio Ousmane Diédhiou dem faju ji fële ca France waaye nag xaalis boobu fu ñu koy dugal mooy wax ji indi nag polémique ci réseaux sociaux yi ndaxte nag dañoo xamle woon ne dañ koy denc boobu le xaalis rek ngir rek di ci def ay social. waaye nag à la fin dañoo génnee beneen communiqué xamle rek ne xaalis boobu bépp ndogale buñ ciy def rek dafay jóge ci Sadio Ousmane Diédhiou ndaxte xaalis bi ci euh, comptam la doon euh, dem ñu àddu jëmale ci wër gi yaram euh, coronavirus nag euh, wéyal rek euh, yoonam fii ci Sénégal ndege ni tey nag 1837 personnes la ñu daal di ci biir 1837 yooyu nag 280 295 personnes ñoo ci daal di positif ñu jàpp ne rek 135 patients tamit jot nañ cee wër. depuis nag ba mbas mi commencé ba léegi rek dix huit mille sept cent cinquante six euh, personnes ñoom ñoo wër ci euh, bile mbas. ci tey jii nag am na ci sept décès ci sept décès yooyu noonu nag depuis ba mbas bi commencé ba léegi bu ñu defee bilan totale bi ñu daal di am quatre cent quatre vingt seize euh, décès. ñu desandi ba léegi rek ci wopp ba coronavirus kii di professeur Daouda Ndiaye daal dina amal ab entretien démb fële ci euh, le soleil yéenekaay moom nag mu xam ne rek euh, coowal vaccin bi bëri na waaye nag euh, ginnaaw loolu yëpp li nga xam ne moo gën a ëpp doole vaccin bi rek mooy sénégalais yi daal di respecté li nga xam ne moo di mesure barrière yi di raxasi seeni loxo te di digle li nga xam ne moom rek lañ leen sant voilà chers téléspectateurs fii la ñuy daal di ndarkeppe xibaar yi di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah.